ñu tàmbali taswu bi nu di ba sopp nañ nu di ba soppeef na maanaam sopp nañ li qaadil xaajati ñeel kuy faj xaajo ku ne ci xaajatul mooy al bawlu wal xaayit maanaam day tuur ndox wala wa di tuur dugub ni ko mag ñi daan doxee sopp nañ ci xaajo julusun jonkan mun nga koy duruusun jonkan maanaam na yegg suuf wa mu ne a ah tereef na duruus moomu tereef na yegg suuf bi raxwin ci barab bu nooy najisin bu sobewu bu dee barab ba muy faje xaajom barab la bu nooy bu sobewu bu fa jonkanee sobe takk ko tere nañ mu jonkan bu jonk na lu muy mu ne wa taayana ràññeeku na alxiyaamu taxaw bu waa taxaw rek lay mën a def waaw bu dee Sénégal moom ci aada dañuy jàpp taxaw di tuur ndox lu bon a bon la ñoo xam ne bu ñu gisee dañ koy dañ koy xeeb lool waaye l'islam daal moom euh, almuhim li am ci mbir mi mooy nga la tax bu dee gis nga ne barab bi jonkan fi mooy tax nga mucc ci sobe jonkanal waaye gis nga ne jonkanee tax sobe taxaw moo taxaw mooy war ci yow bu waa Hmm. wow ma sax moo gën waaye day war ci yow da ngaa a taxaw muy jonkan yegg suuf ak taxaw lu ci ne nettali nañ ko ci jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mu yonent bi comme yàlla yónni woon roy looñu ko moo tax baaxaluñu ko dara léppam la ñu nettali ñaari yëpp lu ci ne nettali nañ ko jëlee ci moom kon boobu mu ne atreef na jonkan bi rax win barab bu nooy najisin bu sobewu hmm. bu boobaa wa tax yena ràññeeku na alxiyaamu taxaw wa sopp nañ ba tay i'timadun sukkandiku ala rijlin cib tank wa sopp nañ ba tay istinja'un tanju bi yadin ci loxo yusra yayne mbir mu ñuy ñaari chamoy wa li doon wax ji moy wa i'timadun ala rijlin yusra istinja'un bi yadin yusra mu boole ñaar yusra yi tax niyo ko mu nek xal ci ñaar yëpp waaw maanaam ki euh, ne ci xaajatul insaan bu jonkane diisaayu yaramam na jëm ci tànku càmmoñam waaw loolu sax day xam-xam saxal na ne bu bu defee noonu bu toogee jonk ne jonk nu mel noonu ci la sobe si di war di mën a génnee dëgg-dëgg ci la sobe si génn nam jaadoo kon waxtimaaru sukkandiku ala rijlin ci tànk bu càmmoñ hmm. wastin jaaw istin jaa mooy mooy tàncu dafa am istinja am istibra istibra moom dañ koy firee laablo laablo euh, istinja ñu koy firee kantu mooy faxe ba dindi sobe si génnoon ci yow faxe mu set na set sa yaram bu mu la taxati fenn waaw bu dee istinja nag nit ki mën na koo def ndox jël ndox raxas sobe sa mën na koo def ak beneen fompukaay fomp sobe si ba mu set istibra nag moom ndox bokku ca moom fomp ak ab morso wala aw xeer wala ab bant yoy rek la lol mo tak la ñaari baat mm-hmm. waye li mu wax fi nak mom moy istinja moy mu fomp sobe bi yadin fompe ko lo op waye lo waaye moy lo loxo moy euh, rijlun yusra ak yadun yusra mu boole ñaari yusra yey ne mbir mu ngi ñaari tamoy mm-hmm. wa sopp nañ balluha sooyal lo oba qabla luqiyil adha njëkk muy dajeeg sobe loxo bi war a raxas sobe si sopp nañ nga raxas ko xam ne loxo bi laal gu si dama ko sànni waaye tooyal ko tooyal ko door a laal sobe sa tooyal ga am na njariñ ndax mooy waral xeetu sobe sa du du du du yàgg ci loxo bi day yomb dindi loxo bi bu njëkkee laal sobe si te tooyul mm-hmm. dindi xet ga day jafe mm-hmm. kon tooyal loolu lay mm-hmm. waa sopp nañ balluhaa tooyal loxo bi xabla luqiyil aza njëkk muy dajeeg sobe mm-hmm. waaw gannaaw boo raxas sobe si ba mu set nag waa sopp nañ xasluhaa raxas loxo bi mm-hmm. muy loxo boobu doon raxas soba sopp nañ nga raxas ko bi ka ci lu mel ni suuf waaw bu njëkk lu lu lu tëë set rek lu lu jafee setal suuf lañ ko daan bombee mu set waaw bu doon tey da naan saabu wala omo ak jumtukaay yi xew di setal yëpp kon mi ngi noonu wa sopp nañu xasluha raxas loxo bi doon raxas sobe mm. bi ka turaabin ci lu mel ni suuf baadahu gannaaw ba mu raxasee sobe si ba noppi wa sopp nañ satru suturlawu ila mahallihi jëm ba ca barabam ba mm-hmm. <coughs> waaw maanaam li ñuy wax mooy mooy jamono yu njëkkee nag ak tey daa xaw a wuutee ci ay mbir mm-hmm. bu njëkk booba ay wanag yi xew ci biir kër yi amul woon ku soxlawoon boppam ñaari day dem ci gannaaw kër gi wala ci àll ba rek waaw maanaam jamono yoo xam ne dem na ba àgg fa mu bëgg a def sobe sa balaa summi tubayam pour mu leer na na na dem bay jonkan bay bëgg a yegg suuf waaye bëgguñ sax mu taxaw summi tubayam waaw loolu nag boo ko doon wax suñ jamono ji léegi dem ci kër goo xam ne Euh, bu nit soxlaa sangu ji ci misaal néegam lay summi ko woddoo sarbet su gàtt mhm. romb jeetu ba ñëpp di xool awraam mhm. bu sangoo ba noppi génnaat defaat mhm. loolu wax dëgg yàlla mën naa ñàkk ci ay jullit suturaal boppam ba yegg ci biir ko balaa génn mu suturaalaat awraam door a génn rawat nag jigéen rawat nag jigéen kon lislaam waxuma sax euh, suturaal dafa ba yegg ci biir ko waaye ba ngay yegg ci wana ko suturaal sa bopp sax ba ba jonkan moo tax mu ne wasatrun wa sopp nañ i'daadu muzilihi waajal aji dañal sobe waaw nit bu soxlaa boppam xaajatu insaan bu mu waaxu rek dem na préparé boppam yóbbaale lu mu raxasee sobe waaw bu amut ndox mu ko raxasee yóbbaale jumtukaay yu mu ko fompe muy i'daadu muzilihi waajal aji dañal sobe mu waajal luy dindi sobe wa sopp nañ witruhu ak toolam waaw bu dee da koy ay xeer la na wut ñetti xeer wala juróom wala juróom ñaar mooy la ci gën a bari mooy la ca gën a bari euh, mooy lim bu tool bu dee ay bant la kazalika bu dee morso kazalika ñett wala juróom juróom-ñaar noonu lañ ko soppee bu weesoo juróom-ñaar ba àgg juróom-ñett te set ma doon lim bu tool lañ bëggoon waaye weesu bi mu weesu juróom-ñaar ba àgg juróom-ñett bëggum sax mu yegg ci juroom ñeental na juroom juróom-ñett yeeg bu mhm. kon mi non wa wa witruhu ak tolam toolam kay ba muy fompee sobe sa mu nekk lu tol wa sopp nañ taqdimu xubuli yi kanamam waaw ba euh, bu bu yi raxas fa sobe sa doon génnee na njëkkee buntu sawukaayam mhm. mooy kanam bi mhm. door a laxas ginaaw mhm. wa sopp nañ tafriju faqidayhi yërale mooy sorilante ñaari lupam jamono yi muy jonkan di dem war ak na sorale ñaari lupam wa sopp nañ istirqaauhu ak yolom istirqa mooy mooy mu mu baxandiku bàyyi ay cëram daal ngir lan sobe sa mën a génn ca nam war a génnee ba lépp jeex wa sopp nañ taatiyatu rasihi muur boppam muur boppam waaw mooy li ma la waxoon rek booba ca gannaaw kër yaag ca àll ba lañ ko daan defee loolu asar la boo xam ne mi ngi jugee ci sayyidna Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu mu wax ne du dem ci xaalitul insaan lu dul day muur boppam xayaan min allahi wa min al malaayika mm-hmm. ngir rus yàlla ak malaayika yi kon kuy kuy def loolu rawat na bu dee du ci biir wanag mm-hmm. euh, mu taxtiyatu rasihi mm-hmm. muur boppam wa sopp nañu adamul tifaatihi ñàkk gestoom bu nekkee ci xaalitul insaan it bëgguñu muy gestu fu ne muy xoole waaw loolu kay ñu ngi ko bëgg balaa muy tàmbali bu dee ca gannaaw kër gi lay dem na xool fu ne ba wóor ko ne kenn gisu ko lu muy ragal wala lu muy daw amu fi euh, mu door a tàmbali waaye bu tàmbalee sopp fi muy gertu mooy wax adamu iltifaatihi ak ñàkk gestu ci sharx bi nee na dañuy bañ mu gestu gis lu ko tiital mu jóg sabe sa taq ko ak yu mel noonu wa zikrun ak tudd yàlla warada goo xam ne rot na baadahu ginnaaw xadaawul xaaja wa qablahu ak la ko njëkk bu dee ci wanag la balaa dugg mu wax bismillah allahumma inni audu bika min alxubusi wal xabaais yàlla maa ngi lay muslu yàlla nag ma musal ci seytaane yu góor yi ak seytaane yu jigéen yi waaw ndax wanag yi ak barabi sobe yi mut la xam rek moom mooy dëkkuwaay seytaane yi moom Mm. même waxoon taa kuy dem wanag waaye boo doon dugg ci wanag ngir dugal dara wala génnee dara bala ngaa dugg rek jàngal ñaan mm-hmm. bismillah allahuma inni audu bika min alxubuti wal xabaayis loolu xadis la bu wér mi ngi ci saxiixul buxaari mm-hmm. am nañu ci dolli ar rijis najis shaytaani rajim mm-hmm. waaye boo yemee fay mu baax waaw bu dee baax du kazalika gannaaw boo génnee ca wanag wa am na ay asar yu ci بمعنى الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني سبحانك ولا غفرانك وغفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني كنا بو جنيكي ونك امنا بنن الحمد لله الذي رزقني لذته واعرج عني مشقته وابقى في جسمي قوته اي سنت يالا ميمو ورتغلون بانيو نيام وي من تشونا defal ci sama yaram katan bi kon lolu ay tuddu yalla yo xamne qabla euh, wa ba'da duxulil xala julub bi war na way baye xel mune fa in faatan dem faat na moom tudd yàlla gi ngay def njëkk ngay def xaajatu insaan fa fii nako defé ca barab ba da ko koo ba yegg ca barab ba ngay Euh, dafay xaajul insaan nee na nga waxee ko ca barab ba waaw bu dee cab àll la nga xam du wanag waaye bu dee barab bi moom wanag la barabu sobee la ca biir kenn du fa tudd yàlla waaw ndax tudd yàlla ci biir wanag daa xaraam am dañ koo sit borom xam-xam yi leeral nañ bu fekkee jàng alquran moom ci biir wanag barabu sobe moom dafa xaraam moom bu dee beneen tudd yàlla bu dul alquran euh, li gën a war mooy dañ koo sit kon fa in faata bu faatee waxoo ko ba yegg fa fii si na ko waxee ca barab ba in lam yu adda ndeem waajaleeful barab ba ngir sobe maanaam ndeem du du aw wanag waaye bu dee aw wanag la ma fu mu charte mi boo xasee dugg ci biir boo doo fa tudd yàlla wanag wu bees sax nga xam ne dañ koo door liggéey benn sobe demagu fa comme barabu sobe la rek bëgguñ ko fa tudd yàlla wa sukuutun ak noppi sopp nañ kii nekk ci xaajatul insaan sukuut mooy noppi waaw noppi gi nag fuqaaw yi bu ñu ko waxee li ñu ci jublu mooy bu tisooli woon bu mu wax alhamdulilah bu déggoon ku tisooli wax alhamdulilah bu mu ko delloo ne ko yarhamukallah ah, ah ak xeeti tudd yàlla yu mel noonu yooyu na noppi wa sukuutun ak noppi bu bu ku ko nuyoon bu mu la fay bu mu tàmbali nuyoo bu déggoon nodd bu mu xikaaya euh, mu nekk loolu bu ñu koy wax yëpp nag mooy ci barab la nekk boo xam du aw wanag waaye bu moom moom mot la xam loolu moom li muhimmin ndara lu yitteel léeg-léeg mu toll ci xaal boo xam ne wax mënta ñàkk masalan ma nga ca ma ngay xaaja seen gumba buy bëgg daanu ci kàmm wala seen xale buy raam jëm ci lu koy lor hmm. seen alal juy bëgg a yàqu hmm. yu am solo yu boo mën naa wax hmm. ngir xetli alal wala ngir xetli bakkan wa sopp nañ bil fadaai ca àll ba ci dem wanag bu dee ca àll la sopp nañ tasa turun ak suturluwu maanaam na na na dem foo xam kenn du ko gis wa boodun ak sori na na na suturlu na nëbbu ba duñ ko gis wa na sori ba duñ ko dégg wa bil fadayi tasaturun wa bu'dun wa sopp nañ ba tey ittiqaa'u juxrin wat ndi ko am pax dem jala ba gis am pax rek dal di fay tuur ndox wala mu fudu fa dugub loolu dañ koy tere waaw nee nag bu dee pax moo xam yow ganal ta dem fa woon ak loolu dara wa waaye paxu jàmbur daal pax moo xam na ko fek rek dañ moom soppuñ bëgguñ nit dafa dem wanag ndax yooyu mën na koo indil ay lor mën na koo lor pax yi léeg-léeg ay jaan ak ay jiit ak yenn rab yu aay yooyu dañ ciy dëkk jinne yi kadaalika dañ ciy dëkk am na ci saxaaba yonent bi Saad ibnu Ubaada radiallahu anhu wax nañ ne def xaajatul insaan ci pax moom fekk ci àll ba ndege ay jinne ba dëkk ci la ko jinne yi raye ci la ko jinne yi raye ci anam goo xam ne du yéeme la xamuñu lu ko rey waaye ñu toog dégg jinne di way way yuy tegtal ñun ñoo ko rey ndax daa def loolu ci suñu pax nahnu qatalna sayid al xasraji saada bna ibada hmm. ramaynaahu bi sahmayni falam noqti fuaada ñaari bayit la yoo xam ne danañ ci way jinne yi la bokk kon wattiqaa u joxrin ak wattandiku am pax waa riixin wattandiku ngelaw parce que kii tuuru ndox wala mu ne ci xaajatu insaan bu jàkkaarloo ngelaw li wala mu wan ginaaw ngalaw li bu ci man doone ngalaw li man na tourner sobe sa mu taq lo loolu lañ ci bañ kon bu ko wóoree ne bu alla bi dàqoo mu wóor ne sobe du ko taq dara ne wut kon na ko ngalaw li ngir ngalaw li baña depp sobe sa mu taq wa mawridin ak rotu kay waaw loolu moom asar da cee ñëw yéen salaa ne na ngeen wattandiku ñetti barab benn waaye ñaari barab yi nga xam ne ku fay def sobe nit ñi dañ lay rëbb waaw barab yooyu bokk na ci rootukaay dem ca pegg teen ba wala ca pegg robinet ba def lu mel noonu ku ñëw bu ko xoolee dana ma ne waaw ki def yi moo nangam nangam naka noonu ci ci tefes yi tefes yi géej yeeg dex yeeg yu ni mel kon mi ngi noonu euh, wa mawri dina ak rootukaay fépp fu ñuy rootee rek euh, wat ndikul di fa tuur sobe wa tariqin ak yoon wa tariqan ak yoon kii bëgg a tuur ndox euh, na wat ko yoon dem ba ci digg yoon di fa def loola loola wax dëgg yàlla daa daa nitewul ab kalbu sax boo seetloo ñaari bi daw ci kaw yoon yi bu bëgg a saw day day jàdd day xaw a wàcc yoon kon di wat kaw yoon rawat na yoon wu dund yoon wax nit ñi dañ fay dox nag boo fa defee sobe yaa ngi tooñ nit ñi yaa ngi leen amal wa chattin wa chattin ak tefes tefes ca pegg géej ga wala ca pegg dex ga moom it bëgg nañ nga wattandiku wa zillin ak ker gépp ker goo xam ne nit ñi dañ fay kerlu dañuy toog ca ker ga wala garab la guy meññ doom ya di wadd ker yu mel noonu bëgguñ ko fay def sobe bëgg nañ nga wattandiku barab yooyu safaan bi it mooy barab boo xam ne nit ñi bu leen sedd sonle fa la ñuy dem di di di keeñorloo jant bi dafa dàkk naa jant bi seen toogukaay la barab yooyu ba kabaar dañ koy war di ko def sobe kon wax dëgg ak kar euh, ngir lan nit dañ koo soxla mm-hmm. waa sulbin ak kekk suuf su dëgër barab bu dëgër waaw bépp barab boo xam ne daa kekk dëgër mm-hmm. xaaliban mm-hmm. boobu fa tuuree ndox euh, euh, saw ma dana tis taq sa yaram wala mu taq sa yére moo tax dañ koy wattandiku kon mi ngi noonu wabil fadaa la waxoon wabil fadaa bu dee ci àll du wanag na wat ndiku yii waaw wabil xadaa toppoon ay tasatur wa bu'dun ak wat ndiku yi ngi teg mooy ittiqaaw joxrin ba fi ñu toll wabi kanifin nag bu fekkee ci euh, wabi kanifin bu fekkee ci wanag la kanif mooy ab douche wanag salle de bain arab dañuy wax mirxaat di wax mutawadda di wax muxtasal di wax kanif di wax xammaam yépp rek wanag Euh, naxaa na fa sore zikrallahi tudd yàlla bu mu fa tudd yàlla ci làmmiñam bu mu fa yóbbu këyit wala dara loo xam ne dañ caa bind tur yàlla rawat na ab téere kon naxaa na fa sore zikrallahi tudd yàlla ci wanag wi wa yuqaddimu day jiital yusraahu tànku ca mooñam duqulan buy dugg barabu sobe yi barab yu suufe yi ca tànku ca moo fay njëkk moo fay mujj mo fay ñëk mo fay mujj boy duggu tank tànk jitu boy genn nday jor jitu kon càmmoñ ñëk fa mujj ba moo mo ne yuqaddimu wa yuqaddimu day jital jiital yusraawu càmmoñam duqulam ci duggu wa dugg mu jital nday joram ko ndeyjooram dem ci genn waaw lool na moy mbolem barab yu soufé yi masalan boo doon dugg ci église wala yu ne mel ah euh, wala lu melni abbar nga xamne ne da nga am soxla ba mëno fa bañ a dugg na tànku càmmoñ ci ñëk bi mujj loolu mu ne ak sa mag jirim mbir mu muy safaanu jàkk barab yu sell yi nag safaan bi ndeyjoor a fay njëkk moo fay mujj booy dugg jor ngay jiital booy génn càmmoñ ngay njëkk génne kon barab yu sell yi jàkk yi euh, del jiital sa tànku ndeyjoor booy dugg booy génn nga jiital sa càmmooy ndeyjoor ba njëkk fa mujj wal manzilu kër wala ab néeg moom yum naaxu na jiital ndeyjooram bihima yaani bil buquli wal xuruj dugg ak génn yëpp na tànk ndeyjoor bi génn moom na nay nay njëkk dugg nay euh, njëkk génn kon ñetti baraba ngi nii barab yu sell yi ndeyjoor a fay njëkk mujj fa barab yu suuf yi càmmoñ fay njëkk mujj fa bu dee yeneen yi ci des nag yi nekk diggante bi del njëkkee dugal ndeyjoor di njëkk génne ndeyjoor moo tax mu ne yumnaahu bihima duqulan wa xurujan wa jaaza dagan na bi manzilin ci kër wat un laal waa bawlun ak tuur ndox mustaqbila xiblatin ngir muy jublu penk ku ne ci këram di jot ak soxnaam fekk ñu ngi jublu penk loola dara nekkut ca wala ku ne ci biir kër di tuur ndox jublu penk tuur ndox ba tey dara nekkut ca waa mustadbiran ak mbir mu muy dëddu wan gannaaw xibla ci biir kër muy tuur ndox wala muy jote am wan jublu penku bi ak wan gannaaw penku bi dara nekkutte wa in lam yulja doonte loru loofu ko doonte mënoon naa jublu feneen fu dul penku moom moo tey jublu ci penku bi ba tey garaawul dara newutti rek ayu waaw loolu nag day junj xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne euh, bu ngeen di dem wanag ngeen di tuur ndox bu leen jublu xibla bu len ko won ginaaw waaw yoon bi ba mu wax lol boba àll be taxoon muy wax keur bokkut ya loolu la bëgg leral motax muy wax li kon yoon bi sallallahu alayhi wasallam muy wax lol Allah. ba moo taxoon muy wax kep kuy tour ndox wala muy dem wanak ci àll na wat ko xibla gi na warmal xibla gi bu mu jàkkaarloog mom bu mu ko won ginaaw xadis la bu wér yém sa ne dacaa teg sax ne walakin charriqu aw xarribu waaw na ngeen jublu penku jant wala sowu jant moo tax xadis bu doy waar rek ñu ne loolu waa Madina mun a war a ñoo ko moom waaw ndax ñoom seen xibla seen penku penku fa mu leen fa mu leen téetoo ba ñu bu ñu julli fa ñuy jublu bokkeewul ak ki jant bi sooyee moo tax ñoom yoon ne leen charriqu aw xarribu du ñoom dong am na ay réew yu mel ni ñoom mel ni ay Yaman ولا الشام اليمن الشام لي نيو خامل نيو ميت نون لا نمل موي ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه دا فا واخ ني تا مدينه منوره دي دنج دان وقت ديكو بينكو بي ا دي وات ديكو جاكار لو موم ولا وان كو غناو تي حاجه الانسان ndax ci all bi lañ ko andé waye biñ ñëwé sham nak dañ fay fekk ay wan ak yo xamné mom mm. ñako tabax dañ ko jubalé fenk mm. mooy waaye nee na bu ñu demee ci wanag wa dañuy xaw mooy xibla bi suñ kam kàttan ànd ak bu génnee di jéggalu yàlla wala dañu wax ne fatwa wala masala yi masala yi léeg-léeg day soppeeku ci jamono yi waaw bu dee ñun suñu réew Sénégal ak réew yu bëree bëri daanaka penku bi mooy fi jant bi sooyee rek kenn mënu laa wax ne bul jublu penku waaye jublul fi jant bi fenkee kon mi ngi noonu euh, lii mu leeral fii day wane ne hadith bobu yo ku koy defee te Allah ba taxoon muy wax waaye kër gi bokku ci motax tax mu ne dagan na wa bi manzilin watun wa bawlun mustaqbil qiblatin wa mustadbira wa in lam yulja don de amul ca ben jafe-jafe am ñu ne waaw li gën a wóor nag mooy comme yoonu tar nako na kër ak Allah dal nga wat ndiko jublu qibla ci dem wan ak ak ndox wala bu fekkee ci kër gi la te am na lu mel ni ab miir wala aw sàkket lu dox sa diggante xibla ba kon dara ayu dara nekku waaye bu fekkee dara dox sa diggante penku bi nag waa wat ndi ko mooy gën mm-hmm. moom lay wax ne wa ubbi la na mu daw wana bi saatiri ci aju am na lu suturaal penku bi lu dox sa digg xibla gi mm-hmm. ñu ne kon comme am na lu dox sa digg ak moom mm-hmm. mën nga jublu penku bi wala mën nga ko wan gannaaw wa bil itlaq am ñooy deret بساتر وبغير ساتر مطلقا رك كم تصير بلا من قاعد بلو من قوان دراو برنكو من لا في الفضاء وهم تي الله بري تي الله مم مم صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا لا تستقبل القبلة بالغائط آه، بري تي الله بين جنك بلن دبل بينكو ولا تستقبلها بلنكو وان جناو waaw ba tey li ñuy leeral foofu baatu xaayit nga xam ne dañ koy firee demoon ak waaye baat bi ci loxo arab yi li ñu firi mooy barab bu xaw a xóot mooy barab bi ñuy def dem ak yi waaye du jëmi demoon ak yi ci boppam waaw ci àll ba nag ci àll ba bu fekkee am na sutural dox sa diggante ak penku bi ndax bu baax man nga ko jubloo nga wan ko walla doo ko man mut la xam comme yoon da ko aaye xawlaani li gën a wóor na mooy wat watndiku xawlaani ñaari wax angi yoo xam ne taxtamilu huma mudawana faailu taxtamilu yaani hiya bu dellu ci al mudawana mudawana dégg nañ ko ñaari ñaari dégg yooyu yëpp wal muxtaaru lañ tànn ci imaam allaqami mu jëlee ci wuute ak tarku mooy bàyyi donte ca àll comme ci àll ba la donte am na dox te digg xibla daal bul jàkkaarloo fenk bi bul koon ginnaaw lal xamaray ni waxuma jant ak weer jàkkaarloog jant bi ولا دكار آه، آه، ويروي بر نكوت لا القمرين يعني لا الشمس والقمر وبيت المقدس جبل بيت المقدس كذلك جبل بيت المقدس ترى تريونكو بيت المقدس قبل لون تا بنجك واي غيناوي بنكو فولل نيكوت قبل كون كي دم وناك ولا موي جاكار بيت المقدس دار نيكوت moom daal liñ ko warmaaloo bu mu ko jàkkaar lool bu mu ko woon gannaaw mooy kaaba gi penku bi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi